إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم وآفاكم وأنعم عليكم بالنعم ظاهرة وباطنة وأولاكم فإن المؤمن لا يزال في نعمة الله إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وعليكم بالقناعة فإنها كنز لا ينفد وزخر لا يفنى فهي غني بلا مال وعز بلا جنود فالقناعة أن يرضى الإنسان بما قدر الله له وأن ينظر إلى من هو أغنى منه في الآفية والمال والأهل فإن ذلك أقرب إلى معرفة نعمة وشكرها ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في هذه الأشياء فإن ذلك يؤدي إلى الخلق وكفران النعماء قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala ak jullit daa war a sax bi sant yàlla ñu ngi seede ne yàlla rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ni ñuy jaamoo yàlla it dañ koo war a royee ci ki mu doyloo woon yónni ko ci ñun yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu mbokk jullit ñi ngi bëgg fàttali tey benn bind bu am solo ci sunu wàllu dund te mooy yëg xéewalu yàlla sant xéewalu yàlla yow jullit bàyyil xel sunu borom yàlla mooy ki ñu bind sunu borom yàlla mooy ki ñu wërsëgal sunu borom yàlla moo sotti ci ñun ay xéewalam lu feeñ ca la nëbbu moo gën a bëri sunu borom yàlla nee na in tauddu nicmata allahi laa tuxsuuha su ngeen doon lim samay xéewal du ngeen ko mën a matal moo ñu tàggatal asamaan mu tiim ñu ak la ca nekk ci jant ak weer ak biddiw moo ñu tàggatal taw mu jóge kaw asamaan moo ñu tàggatal suuf mu génneel ñu des millions d'espèces yu doomu aadama mën a jëfandikoo ci lekkam ak leneen lu dul loolu moo ñu tàggatal géej ñu mën caa génne ay jën ak xéewal yu dul jeex sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñu tàggatal li nga xam ne mooy ngelaw lii ñuy noyyi bu fi jóge woon ñun ñëpp ñu faatu moo ñu wàcceel ay yére wottuñu lu mu defanul bàyyu may sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñu may ndox moo xam ne moo ñuy naan di ci nàndal sunu jur waaye di ci roosee li nga xam ne mooy suñuy tool loolee mbokk nekk xéewal yoo xam ne jaam bu ne war na ko yëg ci ne loolu jógewul kenn ku dul ci sa borom subhanahu wa taala gannaaw ba yow ci sa bopp fàttalikul doomu aadama bis bi nga xamee ni nii yaa ngi sa biiru yaay sa borom yàlla na nga fa fekk di la bind xalqan min baadi xalqin fii zulumatin salaas di la bind bind ci gannaaw bind ci gannaaw ñetti lëndëm wërsëgal la foofee la nga xam ne mooy ay nopp yooyu mën a dégloo ay bànneex buy jóge ci sa njaboot looy mën a dégg ay xabaar yi fi xewoon yooyu mën a dégg lenn loo xam ne dalay bànneexal doonte ne ni am na ñu ko yàlla nattoo ñu bëri ci ay jaamam fàttalikul keroog bi la yàlla di may ay bët bët yooyu nga xam ne la ca nekk jommal na scientifique yi ba nga mën a xool di xàmmee ba nga mën a xool di gis di waaru di bànneexu fàttalikul la la yàlla defal ci sa làmmiñ wi nga mën a toog di wax say soxla di mën cay génne façon waxin yu uute doonte ne loolu yàlla xañ na ko ñu bari ci ay jaamam xoolal li la yàlla wërsëgal ci loxo ak i tànk yaa ngi jëf yaa ngi dem fu la neex sunu borom yàlla xañ na ko lu bari ci ay jaamam xoolal li nga xam ne mooy xel mi la yàlla may am nañu yàlla may bët nopp loxo gi tànk lépp waaye ndeysaan amuñu xel jaaxal nañ seeni mbokk ñi ngi wër ci poubelle yi ak ñi def naka sunu noonu ay yow doomu aadama fàttaliku li nga xam ne nii moom la sunu borom yàlla defal la xatta jamono bi ngay nekk di jàmbat loo amul xoolal sa noy yi ngay demee ndax mas ngaa dëkk ak benn waay boo xam ne dafa asma ndax mas ngaa dëkk ak benn waay bu am ay crise cardiaque bëgg a toog bëgg a noyyi di ñaq bay daanu ci suuf munta noyyi yow yaa ngi noyyi naka na la neexe lii mbokk ay xéewal la yoo xam ne sunu borom sa mbaxtal na ko ci jaww ji ñu nekk waaye feesal na ko ci sunu biir moo tax mu ne wa fi anfusikum afala tubsirun gannaaw ba ngeen xoolee xéewal yi ma leen defal yéen doomu aadama mu wër leen dellu leen ngeen xool xéewal yi ma def ci seen bopp loolu moo tax ba mbokku julit sunu borom yàlla moo ñu xéewal waaye moo bëgg ñu koy sant farataal na ci yow julit bus bu nekk fukki yoon ak juróom-ñaar da nga taxaw ne alhamdulillahi rabbil alamin mooy mboole mi sant ñeel na yàlla mi borom mboole mi mbindaafam imma da ngay julli yow rek wala nga nekk ci gannaaw imaam si imaam kabbaree la ngay jëkk a dégg mu wax ko bokk na ca alhamdulillahi rabbil alamin mboole mi sant ñeel na ki nga xam ne mooy mboolem borom mbindaafan yi ay yow doomu aadama xamal ne gaa yu baax yi fi jaaroon sunu borom yàlla bokk na lu mu leen tàggee mooy dañ doon sant ay xéewalam kate jiitu bi sunu maam ñun ñëpp mu yeneen ci yàlla nuux borom bi mu ne zurriyata man xamalna ma a nuux innahu kaana abdan shakura ey yéen ñi nga xam ne maa yenu woon seen bàyyi nuux te njabootam nga ngeen génni nuux day ku daan sant yàlla la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne daawul lekk daawul naan daawul jóg daawul toog daawul jël daawul joxe lu dul bopp boole na ca alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla innahu kaana abdan shakura borom bi tàgg xaritam ba ibrahim alayhi salaam daa di ne ibrahima de kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam yaku min almushrikin shakiran li anumi ijtabaahu wa hadaahu ila sirat almustaqim ibrahima de mi ngi nii nekkoon ko toroxlul yàlla subhanahu wa taala jengoon lépp lu ñuy bokkaaleeg yàlla waaye ku daan sant mboolem xéewal yu ko yàlla defaloon shakiran li anomi looloo taxoon yàlla tànn ko teg ko ci sirat al mustaqim summa awhayna ilayka littabi' millata ibrahima xanifa wa ma kaana min al mushrikin gannaaw ba yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp boo xam ne gëm na la na jaar yoon wi nga xam ne fa la ibrahima jaaroon yoon ba mooy lan mooy toroxlul sunu borom subhanahu wa taala jaamu ko bañ ko bokkaale dara waaye sant xéewali yàlla subhanahu wa taala mbokk julit xéewali yàlla naka lañ koy sante mooy lu jëkk ji xamal ne dana nekk ci ñetti place place bu jëkk ba mooy sa xol bi nga gëm ne lépp loo xam ne xéewal la gu nekk ci yow wala xéewal la bu nekk ci keneen ci yàlla subhanahu wa taala dong la jóge kenn bokkaale wu ko ak moom kookee ak yonent la kookee milliardaire la kookee général la kookee lu mën a doon ci xéewal xamal ne ci yàlla kese la jóge kenn dindili wu ko ci lool ñaareel bi mooy sant boobu daa war a feeñ ci sa làmmiñ ngay sant yàlla jullit na nga def ah alhamdulillah di sant sa borom subhanahu wa taala ci ay xéewalam di sant sa borom ci subhanahu wa taala la nga yëg ak li nga yëgul waaye mbokk lan mooy matal cant boobu mooy fokk loolu feeñ ci say jëf yàlla wërsëgal na la xam-xam xam-xam ba jëfe ko jéemal dimbali jàngal ko ku xamul loolu loolu la ñu sant yàlla ci xam-xam yàlla wërsëgal na la alal alal ji xoolal la ci sa àq nga def ko ci mooy sol ci lu baax dëkkul fu baax lekkal lu baax waaye nag gannaaw loolu nga la way teg ko fi neex yàlla génneel zakat ba génneel àqu jegeñaale ya génneel àqu masaakine yi génneel àqu mbokku julit ya nga xam ne néew lañu doole ngi dimbali leen ni la ñu sant yàlla ci alal ji njaboot gi la yàlla wërsëgal xañ ko ñu bari nan lañ ci sant yàlla ay soxna la wala ay doom mooy nga teg leen fi neex yàlla loo leen di digal na nekk lu neex yàlla loo leen di tere na nekk lu neex yàlla teeta leen te la nga xam ne mooy yoonu ba yàlla gërëm lii la ñuy sant yàlla sunu njaboot waaye mbokk wér gi la yàlla may tey ñu bëri ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi ñu bëri ñu ngi tëdd ci kër gi wér googu nañ ci sant yàlla mooy xoolal la nga xam ne yàlla bëgg na ko ci ak jaamu yàlla nga sax ci baril say farata waaye baril say naafila yàlla may na la ak jot tey am na ñu bari ñu ngi nekk Occident wala xattaa ci biir réew mi di liggéey liggéey yu taar amuñu benn jot yow yàlla may na la jot nga la waay jot boobu sant ci yàlla bu ko jeexal ci journaux yeeg télévision ya bu ko jeexal ci jeu ya ak caaxaan ya santal yàlla ci loolu di sabbal sa borom koo mën a toll di xalaat foo mën a toll sa diggante sa borom di jégglu say bakkaar yu bari yi lii la ñuy sant yàlla ca jot ga nga xam ne yàlla defal na la ko ay yéen bokk julit bokk na tey lu bari lu dox nit ñi diggante ak sant seen borom mooy la nga xam ne mooy ñàkk a doylu ñàkk a doylu boobu nga xam ne du daan julit julit la yàlla may trésoru trésor yi julit la yàlla may nguuru nguur yi ana lan mooy xéewal gu réy ko yàlla defal mooy yàlla da koo may ngëm yàlla ngëm yàlla boobu moo ko yóbbee lépp loo xamee ni nii yàlla teg na ci moom ci xéewal xéewal gi da koy jàpp ne ah lii kat dénkaane borom bi la subhanahu wa taala daal di koy delloo sa neex yàlla sant ci yàlla loolee wëlbatiku nekkaat xéewal gu tegu ci kaw xéewal ci kawam waaye jullit heure bu ko yàlla nattoo mu nekk aji feebar nekk aji ñànk nekk aji tumuranke nekk koo xam ne sëyul nekk koo xam ne liggéeyul kaza wa kaza ku mel noonu day delloo mbir yi yàlla subhanahu wa taala daa di mun mun bu rafet sunu borom yàlla daa di wëlbati loolu xéewal ñeel ko ay yow mbokk julit bokk na loolu yéegi xéewal yàlla di sant yàlla mooy ngay xool ñi nga xam ne yow yaa leen tani ak xaal boo mën a mel rek xoolal sa kanam sa ndeyjoor da nga gis koo xam ne bëggoo mel ne moom da nga gis koo xam ne nii ñee na la loolu ca bu neexoon yàlla mu teg la ci place am lii mbokk ci la ñu sant yàlla amma la nga xamee ni nii mooy di xool ña la féete kaw loolee fitne bi gën a rëy bi gën a rëy bi dal doomu aadama mooy loolu moom la borom bi di wax naan alhaakumu takaasur doomu aadama dañ koy gis mu yor alal ju bari waaye day gis ne ah man kat ñi may àndal oto yi ñuy dawal man ooma ko kër yi ñu dëkkee man ooma ko seeni doom ñu ne New York wala Canada di jàng man amuguma loolu looloo tax yow da ngay jàpp ne yow ak yi pauvre nga même bu nee ministre nga même bu nee directeur de société nga da ngay jàpp ne pauvre nga amuloo ndax ña nga gis na ñoom ngay xool ci sa kaw looloo tax jamono yi ngeen dégg rajo yi ni ñuy bëgg a rey ci ay convocation ay ñoo xam ne dañuy détourné ñan ca tudd ñëpp mooy ñan moo ñoo xam ne ay millions la ñuy doon fayeeku ñan ca tudd ñëpp mooy ñan mooy ña nga xam ne poste yañ yor dañ leen yoral logement voiture yoral leen carburant tout ba pare ñuy wax naan dañoo jàggati alal lan mooy waral loolu mbokk jurit mooy ñàkk ya xéewul yàlla ñàkk a doon aji doy yal na yàlla doon di njéggal sunu mbokk ba El Hadj Fadil Gueye mi ngi may nettali benn collègue am bu mu nekkaloon Senelec ñoom ñëpp ay cadre lañu waa ji nekk di jàmbat di jàmbat vraiment nangam nangam mu ne ko waaw mais saa waay ndax xam nga ne ñun Sénégal ba mu daj liñ ci am 5 pour cent population bi amuñu ko waa ji nag pacte ba mu yàgg mu ne ko da nga naan 1 pour cent population bi amuñu ko mbokk ndax population Sénégal 1 pour cent bi dañ mën am 500 000 francs par mois waaw wallahi mu ne ko daal sëñ bi jërëjëf bu ñëpp doon xalaate nii jàmm dana am na am mbokk ñu nit xoolal lii la yàlla subhanahu wa taala wërsëgal da ngay fekk yaa ngi jàmbat te fekk yow buur nga yonent bi alei salaam ne ne képp ku xëy ci yéen yàlla may ko jàmm gaa yi jàmm jooju nga xam ne bëccëgu démb maa ngi dégg benn dëkk ci Syrie ña nga leen ndar képp di bombardé juróom fukki nit ak juróom-ñaar daanu nañu fa ñan ñoo ko def ndax ay yéefér laa ñan ñoo ko def ndax ñu bokkul réew laa mooy seen biir réew la yàlla jaxas réew ma waa réew ma neen ñooy reyante yow yàlla may la yaa ngi jàmm yaa ngi tëdd nelaw say doom yi ngi jàngi école sa xel dal na mooy jàmm yàlla may na la ko mbokk loolu ci nguur gu réy ca la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ci mu ne ñaareel bi mooy yàlla may la wér wér boobu tey jii am na boroomi milliards yoo xam ne nii lu ñu mënoon a am tey wér moo doon ko gënal waaye yàlla subhanahu wa taala may la loo dunde bi si keroog yonent bi alei salaam nee na yow xamal na ci buuru adduna ngi nga ca nga bokk tey adduna ñëw na ci yow loolu mbokk bu dee yit boobu doomu aadama dañ ko yëg da ngay gis ne sant yàlla dana yomb ci ñun lool waaye am naa bu dee amuñu yëg-yëg boobu loolee daf ñuy jural ay xat-xat yu lu jeex Omar ibnu Xataab radiallahu anhu am na leen ci ay sahaaba ñu romb benn waay boo xam ne daa daana waaye teg ci it ma nga nekk silmaxa Omar toog di xool ba mu yàgg mu ne waaw saxaaba yi mu àndaloon ana ban xéewal ngeen yëg ci waa ji ñu ne ko ah yaa amirul muminin kii gaana boole ñu gis kii ban xéewal lañ ko mën a waxal Omar ne xanaa gis leen bi mu toogee jóg na dem ci wanag wa yàggul dara mu tuur ndox dellu si waat wallahi bari na tey ay boroomi kilifa yu mag yor nguur ku leen joxoon adduna li ci biiram kañ mën a dem ca wala ba tuur ndox sans problème loolu moo leen ko gënal ndax mosu leen dégg loolu aha kay ñoo xam ne bala ñoo tuur ndox hôpital la ñuy dem ñu sondalee bi kon loolu da ngay gis ne Omar malgré que waa ji coono yi nekke mi ngi xéewalu yàlla goo xam ne mi ngi nekk ci moom loolu mbokku nañu xool di bàyyi xel ci loolu bokk na benn fitna bu rëy boo xam ne dal na yéeféer yi te yow jullit warulu war a dal mooy xalaat ëllëg boo demee Occident lu ñu tuddee stress mooy xalaat ëllëg day gis benn millionnaire ne mi ngi xalaat ëllëg ëllëg ëllëg mbokk ëllëg ëllëg yi yàlla la ëllëg boobu nga xamee ni nii sunu borom nee na wa ma tadri nafsun maada taksibu xadan amul kenn ku xam nooy liggéey suba ndax yow suba da nga leen fekk xamoo ci dara xéewali xéewali yàlla la looloo tax yow jullit lan moo la war mooy saxal ci sa warugar ca ëllëg nga bàyyee ko yàlla njaboot yi nga xam ne ñoo la tee nelaw sunu borom mu ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha amul benn koo xam ne dana dox lu dul man yàlla maa gàddu wërsëgam deel tey yow mi yor dépense kër gi na nga dee tey du tee njaboot gi dañuy continuer dund ba fa neex yàlla bu doon yaa yor seen xéwal kay boo dee ñu dee ala kulli xaal jullit mbokk di def loolu sunu borom mu ne wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum muminin ci yàlla subhanahu wa taala dong ngeen di wékku su dee ne kay nekk ngeen koo xam ne da ngeen a gëm seen borom yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax ba nañu delloo waat santaat sunu borom dalal sunu xol ci bàyyee sunu bopp sunu borom. loolu rek moo ñuy may jàmmi adduna avant jàmmi alaxira moom la borom bi di wax naan alladina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatmainnu alqulub ña nga xam ne dañoo gëm ca seen xol yépp dañuy dale ci fàttali ko seen borom mbokk xam leen ne ci fàttali ko borom bi ca la xol yi dale moom la woykat ba doon wax ne moo ki am ki yàlla lan la ñàkk waaye ki ñàkk ki yàlla lan la am yàlla nañu yàlla may boppam ñu day doo ko adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عز وجل وينقص من شكره بقدر ما أتى من المعصية حتى لو قال الإنسان بلسانه أشكر الله وشكر لله وهو يعصي الله فإنه لم يصدق فيما قال الشكر القيام بطاعة المنعم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون والشكر له فائدتان عظيمتان منها الاعتراف بالله تعالى في حقه وفضله وإحسانه ومنها أنه سبب لمزيد النعمة كلما شكرت زادت نعم الله عليك قال تعالى وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نيجي يسال سانتار سونو بروم سبحانه وتعالى di nga ñaan mu julli sunu yeneen ci bi nga xam ne moo gënoon a màgg ci sant yàlla jalla wa ala borom boobu nga xam ne nii nee na woon ay yéen njabootu daawuda na ngeen jëf li nga xam ne mooy sant te xam ne lu néew ci samay jaam ña may sant loolu mbokk dañuy wane ne sant yàlla du lu ñuy wax bal wax daa bokk ci sant yàlla waaye sant yàlla dañ koy gëm wax ko daal di koy jëf suñu borom yàlla nag mu ne lu néew ci samay jaam ñoo may sant ban na bëri ci samay jaam xéewal ya ma leen jox dañ koo soppee ak kéefér saxal seen bopp kërub alkaange nga ca mooy sawara ca loolu mbokk mooy lan mooy jël xéewalu yàlla jëfandikoo ko ci mooy yàlla subhanahu wa taala heure boo xamee ne yaa ngi sax ci ak mooy ba pare ne yaa ngi sant yàlla wallaay da ngay nax sa bopp del xëy di wax téeméeri yoon sant ñel na yàlla del wax téeméeri yoon yàlla rek ko jara sant waaye maa daama dana yàlla wërsëgal ci xéewal yaa ngi koy jëli di ko mooy yàlla ku mel noonu xamal ne santoo yàlla sunu borom yàlla def ne ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm lekk leen ci ñuy tey ñu leen wërsëgal da ngeen sant yàlla bu dee moom ngeen di topp loolu moo tax ba sunu borom jalla wa ala su leen dara may xéewal nga lekk ci xéewalu yàlla yi naan ndoxum yàlla mi nooy oxygène yàlla bi léegi wëlbatiku sunu borom sant ab jaamam mu ne xayya ala salaa ay waay kaay leen julli nga daal di ñot di sambaaj yi tëdd xamal na yow santoo xéewalu yàlla santoo xéewalu yàlla ci wér gim la defal benn waay ma nga ne ca lalam balaa wëlbatiku dañ koo wëlbati balaa jóg dañ koo yëkkati yow yàlla may la kattan yàlla may la wér yàlla may la xéewal sunu borom yàlla ne ay saab jaam jógal julli nga ñoddi sa mbar gi yow santoo xéewalu yàlla waaye yow mi sax ci bakkaare waajee di nen sangara waajee di njaaloo lam jëfandikoo ci tànk ak loxo xatta cër ba muy njaaloo lam jëfandikoo ci kàttan li nekk xéewalu yàlla la xamal ne yow bokk nga ci ñu sunu borom di wax naan baddalu ni'matallahi kufra weddi nañ jël nañ xéewlu yàlla ga soppi ko la nga xamee ne nii moom mooy ak kéefér ay yow nga ko julit xamal ne sant yàlla ñaari mbir yu màgg mi ngi ci mooy yëg bi nga xamee ne nii danga koy yëg sunu borom ne yàlla yaay yeyoo xéewal yàlla yow rek a mën a xéewal maa ngi lay sant ci li ma jox ci loo xam ne du sama kattan du samay pexe ci loo xam ne du war war bu la waroon waaye ci sa mbaax dong nga ma may lii nga ma may yàlla maa ngi lay sant ci loolu loolee mbokk suñu borom loolu rek lañ ko mën a defal mooy sant ko waaye lii daf lay wane ni heure boo bëggee sa xéewal sax heure boo bëggee sa xéewal yokku nga la way santal yàlla subhanahu wa taala moytul ci ñi nga xam ne suñu jamono yi tey heure boo toogee ñoom jërëjëf sëñ jiw jërëjëf seen jiw loolee mel ne yàlla subhanahu wa taala xéewalu leen wala boog mel ne yàlla ba mu leen di xéewal daa am ku ko ci dimbali loolee mbokk déedéet soo bëggee sa xéewal bañ a nekk ci yow nattu nga la waay santal yàlla yàlla saxal ko waaye santal yàlla yàlla subhanahu wa taala delli ko amma bul jàpp ne itamit ne ki am xiiwal mooy ki bari le déedéet wallahi boo demoon tey Occident wala réew mi nga dëkk da ngay gis koo xam ne mi ngi nguur da ngay gis koo xam ne mi ngi alal waaye sunu borom yàlla xam ko aafiya adduna moom la sunu borom jàlla wa ala ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp koo xam ne daal du muy ba nit ñi si sunuy ndigal ku mel nii de danaa xatal ak dundam même bu doon te ne ministre la wala général la ña nga xam ne ñoo ko xam miin ko dañuy xam ne dundam neexul am naa yow julit yow mi nga xam ne yaa ngi yëg sa xéewalu baroom yow mi nga xam ne yaa ngi sant sa baroom bokk na loo xam ne yàlla digg na la ko mooy man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin falanuhyiyannahu xayaatan tayiba képp koo xam ne dem na yàlla jëf lu baax na doon góor nga wala ngay jigéen sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne dinaa la dundal dund koo xam ne dund ko tey la danaa la dundal dund koo xam ne dund ko tey la même bu doon da nga nekk ci say néegu ñax loolee mbokku julit nag lan moo ko mën a may doomu aadama bi mooy mu daal di delloo lépp loo xam ne ay xéewal la ci sunu borom subhanahu wa taala borom boobu nga xame ne nii moom dong dong dong mooy yee ñu jaamu ko xamal ne mboole mi jaamu yàlla loolee sant yàlla lañ koy tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeewu na xaaju guddi di naafila di naafila ba fajar jot mu boole ko di jooy rangoo ñam ya tuuri ca suuf ba leen ci sahaaba yi di ko wax ay yow mi yàlla yónni xanaa xamoo ne yàlla dalaa baal lépp loo masoon def ci bàkkaar yàlla baal na la lépp loo nar a def ci bàkkaar lan la yonent bi alayhi salaam tontu afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk jàmm yi sant sama borom heure boo jógee jëm ca jàkka ja heure boo jógee di jàppi heure booy sarxe lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci lu baax lépp loo xam ne yaa ngi koy bàyyi ci lu bon xamal ne mbokk loolu lépp sant yàlla la loolu nag nekk mbir boo xam ne bu màgg bu jafe la ba nga xam ne dañuy jeexale sunu xutba bi mooy la yonent bi alayhi salaam dénkoon Muaz ibnu Jabal nekkoon benn ndaw boo xam ne ëppoon xam-xam ca ndaw ya waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko wax ay yow Muaz man de dama laa bëgg nga la waay bul fàtte heure boo jullee ba pare na nga wax yàlla yàlla yàlla nañ ma dimbali ca ma lay fàttaliku yàlla yàlla nañ ma dimbali ci ma lay sant ay yàlla yàlla nañ ma dimbali ca ma lay jaamu-jaamu bu sell mooy allahumma a'inni ala zikrika wa ala shukrika wa ala husni ibadatika nga la waay góor ak jigéen ñépp nañ ko wattu heure boo defee say tasbix say ñaan nang ca boole yàlla yàlla nag ma dimbile ma lay fàttaliku yàlla yàlla nag ma dimbile ma lay sant yàlla yàlla nag ma dimbile ma lay jaamu jaamu boo xam ne jaamu bu sell la اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك وأتمها علينا بنعمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين مؤمنين اللهم ارزقنا من الصالحات كن من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين